alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki téléspectateur u muslih tv ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi dellusiwaat ak yéen ci téere bii di maada yaani intimaai lil islaam bokk bi ma bokk ci lislaam lan lay tekki ñu nekkoon ci xaaj bu njëkk bi jëloon ci tomb bi njëkk doon faram tomb boobu te moom moo di nekk bi ma war a nekk jullit ci sama pas-pas ñu ngi toll woon ci tomb juróom-ñaareel bi war a jëm tey ci tomb juróom-ñetteel bi ak yi ci topp bon mbokk yi ngir sama pas-pas mën a wér il faut ma xam ni yàlla tabaraka wa dafa am ay tur ak ay melokaan ay turi melokaan yoo xamante ni moo dëppoo ak jëmmam ji moo dëppoo ak sellam xadis bi tukkee ko ci seydna abi hurayrata radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lillahi tisatun wa tisauna asman miatun illa waxidan laa yaxfazuha laa yaxfazuha axadun illa daxala aljannata wa huwa witrun yuhibbul witra rawaahul buxaariyu wa muslim seydna abi hurayra radiallahu anhu xadis bi mu ñu nettali dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent muy téeméer bu manqué benn kenn du wottu tur yooyu lu dul dina dugg aljanna mu teg ci ne yàlla ku wéet la ca pàccoli la te dafa bëgg lu wéet moom kenn la impair la te dafa bëgg lu impair mbokk yi bon jullit bi foog mu fas loolu foog mu gëm turu yàlla yi waaye mu gëm melokaanu yàlla yi waaye yi nga xamante ni moom mooy turami kii melokaanam yi mu melal boppam yonent bi sallallahu alayhi xamal ñu ko waaye tur yoo xamante ni la yu dëppoo ak jëmmam mbokk ci yàlla bokk na ci lay wéral suñu pas-pas ginnaaw bi ñu gëmee turu yàlla yooyu ak yi melokaanam te moo di juróom-ñeenteel bi mooy ñuy xalaat ci li yàlla bind ñuy xalaat di méditer ci li yàlla bind waaye ñu bañ a méditer ci jëmmi yàlla ci boppam ndax ñu mën dëppoo ak wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis boo xamante ne abu naim nettali na ko ci alxuliya al asbaxaani andi na ko ci at tarxib wa tarhib te moo yonent bi saa wax bi mu wax ni tafakkaru fi xalqillaahi wala tatafakkaru fi daatillaahi fa innakum lan taqdiru qadrahu xalaat leen ci mbindaafoonu yàlla yi waaye buleen xalaat ci jëmmi yàlla ndaxte yéen amuleen capacité mën a dab bi mën a xam jëmmi yàlla nu mel bon jullit dafa war a fas ni yàlla na mu mel exact mënu koo xam capacité intellectuelle mënu koo daj mënu mënu mënu koo dab bon mu noppal boppam ci xalaat ci jëmm yàlla waaye li nga xamante ni moom mooy li yàlla bind te mu bari lool te mënu koo sax jeexal mën na ci xuus di ci xalaat di ci yëg màggaayu yàlla tabaraka wa taala di ci gis kàttanu borom bi tabaraka wa taala loo xamante ni dina ko doy sëkk ci li nga xam ne moom mooy euh, pas-pasam ci mu wér waaye mbokk yi ci fukkeelu tomb bi lay tax ba suñu pas-pas mën a nekk pas-pas bu wér pas-pasu lislaam moo di melokaanu yàlla yi tabaraka wa ñu xam ni yàlla tudd na ko ci aaya alquranul karim lu baree baree bari léeg-léeg dinañ ci gis luy wone ni moom rekk mooy yàlla nekk bi mu nekk yàlla dafa mët daf ko mëtal sëkk amul dara loo xamante ni manquement la ba ñuy yaakaar ni am na keneen beneen yàlla boo xamante ni mën na am loo xamante ni mën na ko ci complété bon moom dafa mët sëkk ci nekk bi mu nekk yàlla waaye am na yeneen i aayaat yoo xamante ni ñëw na ci wane melokaanu borom bi tabaraka wa taala ci ni moom mooy ki kiy des lépp mën na fee jóge lépp mën na ko fee jële moom ndax moo ko fi andi waaye moom kese mooy ki fi dul jóge waaye nga fas ni yàlla tabaraka wa taala moo fi jiitu lépp lu ne ndax lépp moom moo ko créé naka noonu gëm ni alquran andi na ay aayaat yooyu junju ne yàlla tabaraka wa taala dafa ute ak li nga xamante ni moom mooy mindaafoona mi dafa ute ak mindaafoona mi nekk na koo xamante ni ku seet la ci am doom yàlla du am doom yàlla amul waajur yàlla amul waajur waaye yàlla amul ku mu ñuróol waaye yàlla amul koo xamante ni ñoo tolloo pouvoir ñoom ñaar déedéet ay aaya yu bari ci alquran ñëw na di wone ne loolu amul waaye naka noonu am na ay aaya yoo xamante ni ñëw na di wone ne yàlla tabaraka wa taala moom mooy ki mënal boppam lépp moom mooy ki nga xamante ni doylu na ci li nga xamante ni moom mooy euh, ay mbindaafanam bal moom mooy ki leen di fajal sax seeni aajo ñoom waaye moom soxlawut ñu fajal ko ay aajoom ndax matalal na boppam lépp waaye am na ay aaya yeneen yuy wone kennub yàlla tabaraka wa taala moom kenn la amul moroom amul nawle kenn la ci jëmmam kenn la ci ay melokaanam kenn la ci ay jëfam kenn la ci ay doxalinam waaye it am na ay aaya yoo xamante ni ci alquranul karim mi ngi wane kàttanu borom bi tabaraka wa taala waaye mi ngi wane màggaayu borom bi tabaraka wa taala am na yoo xamante ni mi ngi junju yaatuwaayu xam-xamu borom bi tabaraka wa taala yaatuwaayu xam-xamam waaye peeg bi mu peeg lépp lu ne naka noonu la amee ay aaya yoo xamante ni mi ngi ñëw di jundu coobare borom bi tabaraka wa taala li mu li ko soob lu rekk mooy am lu ko soobul dara du ci am waaye lu ko soob moom mooy féete kaw coobare keneen ku mu mënta doon bëgg-bëggam mooy dox ci kaw bëgg-bëggu keneen ku mu mënta doon waaye naka noonu la amee ay aay yoo xamante ni dafay junju ne yàlla tabaraka wa moom mooy ki meloo melowkaanu dund bu mat sëkk ba tax na mbokk yi noonu la amee aaya yoo xamante ni dafay junju melokaanu yàlla ak mët bi mu mët ba nga xamante ni amul lenn loo xamante ni manquement la ci moom ci ay melokaanam wala ci li nga xam moom mooy jëmm waaye nga gëm ni yàlla tabaraka wa moom ci boppam na mu mel na mu tolloog loolu doomu aadama mënu cee yëg ndax ni ko yàlla bindee xelam mul xalaat ba daj ko yàlla mënuñu koo tàgg ba jeexal ko moom kese mooy ki mën a tàgg boppam ba mu mat sëkk ndax moom kese mooy ki xam bopp ba na mbokk yi euh, dañuy yamandi ci tomb bi ba yeneen daje yi di ñëw ñu dëgmal fukkeeli tomb bi ak ñaar ci liy euh, war a daje ci ndax suñu pas-pas mën a nekk pas-pas bu wér mën a nekk pas-pasu jullit aqulu qawli hada wa astaghfirullaha lii wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh